baay baay boobu nag ah def nii mais ni suul la wala baay baay waaw waaw faati waaw borom noo moom waaw deful dara lu ñu téye faat lay def lépp tax yow façon la ko ñan yor suñu difficulté suñu personnage ak suñu dara kese suñu takk yor bu tuwaat fii la njëkk dara réeru ci réew mi laa duy téye faat ma dem moom moo ma téye laa dina téye faat ma xarit ñoo téye ñun dañoo bëri dañoo baax am na ko wax naa laay fan Mbacke bi dafa ñëwaat ci moom jarul wax ci bés tey ndax boo xewlee soxla wu kenn déggul nga wax li mu wax mooy sëy la décidé laay may lay sëy borom moom moo laay nag da koy téye xam nga lu tax ñu téye faat faat bi jigéen bi madame Tane fii la dëkk ci réew mi mu toog ci dëkk bi nag toog fi mu war a toog ba jëkkër ñëw mu ànd ak moom ci ay waajuram ñu may ko eh papa ma ko maye yaay ma ni toog ay bàjjanam toog ay jaamali toog ñu fekk ko tuuti foncé bàyyi yaay du def dara lu muy faat faat du def dara lu muy sëy parce que lu muy sëy sëy la te eh bu ko téeméeri milliardaire toppee na ko dama laa nopp laaya taxaw ne sama xuróom yi kon laay la ñuy sëyal eh, eh, eh surtout seen dara wàcc bi noo moo lañ eh, sama rek ci mais réew mi ay wax ne sa ko fi ay waaw dalay téye maa nekk dëgg la ñu woowee sa yaay Sabara Diagne Demba Maye Diagne Demba maa sama Yacine Diagne gànjool gànjool sama rakk di laaj bu la takkee mu sëy ko indi fi million yu bëri nag indi fi or bu doy dara jeex sama rakk kii laaj du koy sëy normal li ma la waxal xale yi ci xel ci xel du ma ñëw sa xel bi teg ay tànk dama koy amal sama rakk du fi xale nag damay taxaw bàkk soo xale dama lay wax bu baax eh,

baay ay million ay ci cadeau yi la bokk yi ci la bokk lañu sama doom bi dafa baaxoo du wax ñu ci 10 bi ba ñoo bëgg def ni kon ni ñu defee kon ba say ñëw ñu ci 5 million ba 10 ba ñu Fan Mbacke Sali Diallo moo yónni ci yow sama rakk Sali Diallo moo yónni Sali Babe yaay waay. Séeri faal. muuri ma ca Ndar ak muuri ma ca Sali Babe nee dam koo bëgg fonk ko teg ko place dagg barka la macha e Bamba Càkk booy we daanu Baye Modou ne Sali Thiam nee na day ñëw ci yow Baye Modou ñëw na ci moom ba pare sànq Baye Modou dafa ñëw ko dexee ndaw doom ñëw na ci Fall Mbacké waaw ñëw na ci Fall Mbacké loolu am de doo fekk takk sagar ma sa tàgg ma sagar ba ñu wootee loolu am de ko am na dem ba ci sa ko am na dimbali sama baabel nee na ay junni yu bari teg loxo fan wéeru junni yow sax ma jox fan ba ko àndal sax doole nga àndal ko àndal sax nga àndal ko àndal sax àndal sa mën a ñëw nga àndal ko dafa tax xamé niw lu niw ko ko niw ko àndal ko àndal sama xamé xam nga dafa sa yëpp ko ménal dara fa koy gëté da nga taxaw ak ci sa ko da nga féké ko féké na mo ko ko mo xamul tu ban ko boole li bi bi gala ni la ma ko ñu da nga té da nga sey sey rek ba di ñu la mayé da nga sey sey rek ba sey dépense bi manqué na ñu da nga sey sey rek basey sa yaay ji di ci kër gi daa sëy sëy rek basey sëyal sëy sëyal sëy jigéenu bàjjan doom yow koy wëndeelu daa gax yaay maa la kenn du ko wax ku ne xam nga kala man danga koo dul na bañu doo ba pare bañu doo ba pare bañu doo ba pare d'accord moom boo ko. amoo benn destination boo wàccee escalier bi sa bopp bi am mbay bu wàccee escalier bi dugg ci boppam bi wàcc naa dem sama ba toog mais coow na boo reetaanee da ngaa dugg sa cànni kaay nag coow daa bëgg coow na ci lan kaay nag ay gaay wax da nga jël ci sa snap di wax di toll waa topp waa topp kaa ne ñoom lay wax waa kaay ma jënd ci daal nii la ñëw mais yaa ngi doon defante ñu ndax nee nga topp kaa bi kaa jeexagul. laay bi mosul kii bi gën a yeeg. ki ma ki ma dugal ci kaay kaay climatisé ko. ci ay million def ci sama loxo ànd ak man ba ci dëkk. waaye ma waaj ma ma loo def baax na say baa ngeen. maa ngi ñoom ñu ngi leen di yomb. tubaarkàlla macha allah ñu rëy a waaye mil na fa ñetti mil na fa magal mil na fa magal. cër boobu am na dawoo. dawoo benn cër. néewoo maa ngi ñëw néewoo damay ñëw ba si. ba ki dem ba ma koy yóbbu kër Kër Masaar muy njëkk seen i càmmiñam ñu ko way njëkkee dafa am doom ñu ci waa toppikaay mu baalu mais dégg nañu nag ñu ne wala lakk bi nag yaa yore bon yaa tëdd ba pare delloo la ah, ah, ah. eh, loolu eh, ñu ne sant bu moo def vidéo boobu eh, mais bi ko defee dafa yàgg looy woo doo ko jël un million ah loolu la ñu ay waxati kaay ba may ñëw léegi léegi sant bu baax waaw waaw mais vidéo bi dugal biir topp kaa muy wax la portal la Babacar Sall yaay leer ak ñi tax. dafa àgg oto bi muy ñëw. ci la nag. daa mel ne ba dugg sama laay bu génnaa ñu naan. mais dégg nañu temps yii nag da ngaa wàcc na da ngaa jaay sa oto àgg oto ñëw. Eh, dafa àgg oto. Ah! da ngaa àgg oto. wuy ma dafa àgg oto. ci la nag. ay day fëri. day fërëg may jaxase. waaw kay saa la yaay def. <laughs> mais temps yii nag mooy ma natt gi am na nag natt gi nag baax na nag. waaw nag diggante ak Mame Ndiaye léegi jubóo ngeen Mame Ndiaye fekk. saaga daal ak ay. mbokk tayum la mais léegi moom moo ji. kaa bi loolu la. mbokk tayum bàyyi mu ngi ko. mais jéegoon nañ ne mu ne oto bi nga ah, xam nga soxla loolu lañ doon. ah yaa xam loolu lañ def. yaa xam loolu wala yaa xam loolu. yaa ngi gis ñu ko wax. yaa ngi gis ñu ko bind. ay yaa ngi gis loolu. man du ma lii. lan moo nekk seen problème yi ñaar. mais dégg naa yow say jigéen ku leen laal yow yaa leen di génn tontu leen. waaw ñu ne laaj am ci jéem waaw. déedéet kay. attaque nag wax dëgg diw bi Babacar Bongo nag. Bongo Bongo. boobu maa ngi doon parental Bongo. mais nag dama doon wax Alphane kii ni ñu koy waxatee. borom borom Sorano moom mooy sa baay moom nga moom moo ci am géwél. waaw waaw waaw dañuy anniversaire am bi ci suñu réew. ah waaw Sorano wàcc na ba dara dañu fi ñëw waxal nañu nag Sorano dëgg na. ah déet Sorano ñu ngi sa woon nag Babacar. waaw mun na am kon nag ba mu mën a indi ngeen dem ngeen. waaw xëy na xëy na mën na nekk. kon yaa tëj xew. maa ngi tëj maa ngi tëj. maa ngi tëj at. suñu rek maa ngi tëj loolu. mais temps yi looy waay la. Thank you.